waaw li ma wax ci RTS parce que dañoo wax léegi bu CNRA ma wax ko ci RTS RTS sénégalais ñoo ko moom xam ngeen ñii fi nekk yépp média privé ngeen waaye nu ngeen nekk nekk nekk média privé charte bi leen engagé bi leen jox yéen habilitation pour ngeen mën a exercer dafa ne nii ak nii ak nii ngeen war a defee bokk na ci da ngeen war a tolloole sénégalais yépp informer juste et vrai moo tax ngeen nekk fii donte am na ñoo xam ne ci yéen ñi moom seeni organe de presse peut-être nguur gi la ñu gën a jege peut-être que opposition la ñu gën a jege waaye ñi ngi fii tey parce que information la waaye RTS anamu fi new fi te li RTS di di di di di am jóge ci ñun moo ëpp foofu parce que am ngeen subvention peut-être mais lu tuuti la li ci des yéenay débrouiller mais RTS 100 pour cent de son budget ñun ñoo ko koy jox suñu impôt la ba pare mu lànk ne du couvrir activité opposition te mun a xëy suba ba guddi am Macky Sall andi Macky Sall loolu ngeen fa ne yoon la te charte réew mi ne ko da nga war a moom lañ ko gën a imposer que médias privés yi sax la la pluralité dans l'accès au médias publics loolu principe la de droit du ngeen gis Ousmane Sonko wala Malick wala xalifa Sall à la RTS lu dul ñu ne campagne électorale jot na loolu est-ce que yoon la kon loolu il faut mu jeex il faut que ñu ubbi RTS am na émission bu tudd pluriel defe naa boobu yoon la chaque 15 jours ñu invité ci opposition comme ni ñu fi invité pour pouvoir bi ñaareel bi mooy CNRA nga xam ne ñoom it dañoo féete ñëpp xam nañ ko balaa ñuy mën a dénoncer rek mu concerner. opposition bi waaye CNRA nee nañu ñi nga xam ne journaliste lañu te engagé wu politiquement ba ñenn ñi sax nekk ci candidat amatuñu sañ-sañu dem taxaw ci seeni organe de presse wax ak sénégalais yi waaw RTS ki ko jiite moom lan la du candidat la candidat la pour nekk maire ba pare war a jiite RTS est-ce que kooku mun nañu tolloo la ñun ñëpp kon kooku dafa dañ ko war démi démissionner dañ ko war a gi foofu mu nekk noonu teg fa quelqu'un de neutre comme niñ ko réclamé ci euh, euh, Sénat nga xam ne ñi fa nekk ñoo fa nekk 2012 ba léegi te mosuñoo organiser élection correctement retraité nañu d'abord en tant que fonctionnaire waaye seen mandat jeex na depuis mai 2011 ngeen foo ne ñooñu ñu def lu naqari Macky Sall kon loolu mooy poñ bu mujj bi ñu bëggoon wax ñu ngi leen di gërëm leen sant di jéggalu nag ci guddal bi. deux